dafa soxla doomu Sénégal yépp nga bàyyi sa lépp ñëw pour jàpp et puis l'environnement est propice tax gis nañu ñi jiite réew mi bëgg nañu réew mi dem jëm kanam te bu amee ay doomu réew mu ñëw di ko jàpp pour jàpp ci liggéey bi vraiment dañ leen di dañ leen di encourager et je vous je vous félicite hein vraiment vous chapeau hein, à vous. merci beaucoup ñaanal ñu. xanaa li ma ciy dolli rek moo di euh, comme ni mu ko waxee dofuñu quoi effectivement la question elle revient tout le temps. Euh,

Euh, buñ fi ñëwee fekk nañ ci lu bëri loo xamante ne dañ ko war a def xëy na peut-être moo tax yenn Sénégalais yi yaakaar ne dafa yéex euh, mais boo ñëwee fekk fi loo xamante ne plus de cinquante deux ans ñu def ko fi ci ñaawteef mhm. euh, boo pour nga defar day yéex mais en tout cas endroit bi fu mu toll nii gën na motiver Sénégalais yu bëri tey gi yu nekk diaspora pour pour ñëw situation actuelle bi gën na motiver Sénégalais yu bëri yu nekk diaspora pour ñëw da ngay toog sa nit woo la ne la man maa ngi man bëgg naa ñëw wax ma ni ak nga jox ko ay conseils yi nga xamante ne moom moom moo nekk c'est vrai que nag ñibbisi yombut mais nag il faut du courage il faut mën a nekk bi ñu nekkee fee il nous fallait courage on a bravé que soit la neige que soit la lépp lu mu mënti nekk foofu rek def nañ ko jox ko àqam foofu noonu ba yàlla def lu mu fa def lu lu ñu fa may bu ñu ñibbisee fii aussi yaakaar naa ne bu ñu defee lépp li nga xamante ne moom la war a def tey jii nii yoon la ñu génn ci.

xanaa rek pour bañ a euh, goudel rek mais euh, il faut du courage il faut de la planification il faut être méthodique aussi pour pouvoir venir man xëy peut-être loolu lay jox rek sama mbokk euh, sénégalais yi nek ci biti nga xamantene dañuy may wo des fois laajte nak lañ mën def pour ñëw. Euh, alors je rajouterai quelques mots par rapport à la planification man par exemple mon exemple typique je l'ai pas planifié je l'ai anticipé parce que beaucoup de certes mais euh, pas de manière précipitée donc du coup euh, c'est pour des raisons euh, familiales mon terme anticipé. et finalement depuis quatre ans je n'ai voilà j'ai pas j'ai pas regretté c'était dur c'est angoissant parce que je d'aimer ci benn de bëgg réintégré wu parce que du intégré da ngay réintégré wu ci yenn euh, doxalin yoo xamante ni yow xam nga bu baax ni que dañ ko war a dépassé franchement <laughs> voilà mooy gaz donc nga war a réadapté wu ci yenn kii dafay metti mais il faut nga résiliente il faut nga am courage comme ni mu wax pour mën a encaisser pour mën a toog parce que j'ai vu dans ma famille dans ma propre famille ñu ñibbisi mais ils n'ont même pas fait six mois parce que la voilà réalité bi mënatuñ ko donc ils sont repartis donc résilience courage de globe, bien sûr patriotisme pour mën a de, de en fait, c'est ce que j'allais vous demander. C'est quand même risqué, vu euh, quand même une euh, ci euh, formation bu nga am ak que nga xamante bi nii moom et puis décider ñëw euh, ñibbisi euh, ma tout à l'heure ndax da ni euh, <laughs> Sénégal jamaa bi fi parce que en fait bu ma contraste bi mu parce que ñi nekk fii ñoom ñi tout pour dem mhm. yéen nekk ñi nekk di di bëgg di gis ak tragédie yi fii am yii nii li lim leen jaral. Mhm. pour ñuy jël gaal yi ba mu jaral ba seen bakkan di ci des pour ñu dem.

parce que man musna ñibisi tout à l'heure ça fait 27 ans que je suis en France Lo gis ngëm-ngëm c'est le soubassement c'est la base bu ñu ne patriotisme rek faut pas qu'on le rallie au parti pastif. je veux pas parler de politique mais bëgg sa am lu je donne juste mon cas et mon exemple def dama def en France les études supérieures en France mon master en informatique. Mais toujours, dans ma tête, je me suis toujours dit, dans ma route, que ce monsieur au bouffé, c'est de me couper Sénégal. Parce que j'ai l'occasion de dem des choses, des choses, et j'aime mon pays j'aime ma patrie choses, il faut que donc du coup très jeune je me suis dit je fais moi, je vais aller tester le Sénégal à travers mes stages de fin d'année donc mon master 1 mon master 2 tous mes stages je les ai faits au Sénégal pour regarder le terrain parce que dama me li ma gis ci tubaab yi mu épaté ma dama bëgg sama réew am ko et quand j'ai fini mes études ma on m'a embauché ici au Sénégal bi may ni ñëpp ne ma yow da nga dof looy Sénégal nigel ba am expérience ni xam nañ c'est des jaar nani ci kaaw étudiant boo ba pare il dañ leen ba am expérience door ñeu mais moi ma meilleure expérience je l'ai eue au Sénégal j'ai fini je suis venu, j'ai travaillé pendant cinq ans au Sénégal par patriotisme li c'est dans les années 2000 vers 2002 en 2004 je suis rentrée au Sénégal. je suis rentré au Sénégal baye sama à l'aventure mais je sais que ni je pouvais apporter à mon pays donc ça c'est le sens du patriotisme Moi, la lépp balasar que yenn yi di juddu mais c'est le pat bëgg sa réew. moo la lool ma ñëw liggéey fi nag pendant quatre ans cinq ans dans une très grosse boîte d'informatique après nag xam naa di nga ma laaj li tax ma dellu Sénégal li tax ma jóge fii dellu. xam nga ni dina ñëw. sëy rek sëy la ndax ah, jigéen dëkkul fenn. fu la fu la sa jëkkër woo rek fa ngay dem. pour vous dire que c'est ça quoi. si bu fekkee gaañ mën nañu compléter mais c'est c'est ngëm-ngëm la c'est en fait moi taxone nga baye après liguey bi liggéey bi fii après daal di dellu Sénégal euh, ba pare gëm sama bop parce que j'ai su me réintégrer dans ce pays là en Europe mhm. parce que lima jang fi fii mhm. ñi ma jàngandool sax mëna wax ni amna ben moment bo xamné lima jang parce que Sénégal fi dafa nek lo xamantene euh da ngay jang d'al école là donc lima que fi bima démé ma ça m'a beaucoup servi donc même dans mes entretiens d'embauche au niveau de la France quand on me dit quelle est la plus grande expérience bi la c'est mon expérience au Sénégal parce que j'ai su apprendre tout avec le Sénégal mu nek dëkk ko bëgg le dénominateur commun c'est cette patrie et cet amour qu'on a pour ce pays. ok d'accord alors. patriotisme et puis ma jëlé sama kaw aussi xawna am touti luma ma laal ci kaw mhm. da man eh, dama mas a wax né en fait ok dem fofu euh fi lañ amé bac dem nañ fofu jang fa am fa suñu diplôme yépp am fa liggéey aussi eh, occupé fa ay poste de responsabilité mais tant que ñi biwuma man j'ai pas réussi man c'était en fait ben ki bo xamante gëm-gëm bu ma tant que ñi pour man j'ai pas réussi mhm ngi door a nak xamni li ne ci kanam mhm. ngi ñaan yalla rek xëy na ci eh, ki bu ñu dugg noonu mu yombalal ñuko waaw ah, mais ah, li saayaande wax dafa am solo trop manam jaar-jaar bi nga am senegal bo demee en fait da ngay am benen vision mhm. da ngay jangat fofu non aussi nga boole li nga am fi ni jaar-jaar bi nga am fi ni ak li nekk fofu su ko defee en fait da ngay trouver ce chemin pendant nak li bok am to lo xamna ñu nekk fi dañ d'accord ak moy aduna euh, rek lepp xaalis lalu ko mhm. effectivement day lijjanti lu bari te ku nekk aussi sañu bu sañu dina pauvre peut-être nekk ci ab ben Mercedes wala nekk ci keur gu rafet hein do na fa pauvre ci côté yooyu non mais dafa am lo xamantene bo boo ci tibiti dalay da fi mën nga am lepp nak lepp mën na taxaw mais toujours tu as ce sentiment là amna lo loo manqué parce que le fait de de voir tes parents yeewu gis len wala la semaine gis leen loolu dafay def dara ci nit le fait nga toog ci benn dëkk xooluñu la parce que yow mii ni en fait ni nga mel wala so couleur nu mel wala amoo histoire bu demee noonu loolu wala meroo pour loolu loolu dafa baax ci nit dafa am lu muy defar ci nit léegi nag patriotisme bu mu wax dafa am solo lool parce que dëkk dañ ñu ko defar sans patriotisme te boo xoolee élan boobu noonu mooy daw fi astronomie jàng nañ tey jii nii Euh, euh, on va dire l'aviation, aviation ko wax fii nii tey euh, aviation tay jang nañ ko certes am na école mais li tax ñu wax aviation tey gii nii nit ki bu la waxul na Europe la jóge andi ko fi franchement da lay na comprendre parce que amuñu technologie yi nga xamante mo moo waral nag tey gii nii réew mi dafa soxla ñew ñu ñu ñew tout comme Edouard nu muy jógee fee ne andi xam-xamam ci agriculture ñoo joko ko Sayande Mariam man mi aussi sox bu dee as tuut sa ak néew lañ jot am rek war nañ ko war a partager ak ñoom et puis ñun aussi soxla nañ waar réew mi parce que ñun dañoo war a ànd ñëpp doon benn liggéeyandoo pour réew mi inculquer ko suñu doom yi ah, loolu daal je pense que ne patriotisme boobu ak gëm sa bopp boobu noonu pour résumer moom moo ñuy pousse gi ni pour ñu ñëw ci euh, ñib si mais nag du du du daal D'accord. Alors, euh, bon, c'est vrai, parce que, euh, comme on a l'habitude de dire, de hein, euh, ne sais pas, pas, mon de bâtir euh,

premier défi bi moy de convaincre les jeunes qui sont là que ni fi lañu wara tok ñom pour construire dëkk bi deuxième défi défi bi c'est aussi de convaincre euh, seen patriotes yi nga xamante compatriotes yi nga xamante ni ñi ngi nekk à l'étranger ñu woon Sénégal installé wu Fofu, ngeen war leen convaincre ñom ñu jóge Fofu, ñëw fi Sénégal pour mëna japp euh, ci liggéey bi parce que récemment euh, le premier ministre Ousmane Sonko je pense que un appel pour wax ni les sénégalais de la diaspora nañu ñëw pour nous aussi contribuer euh, liggéey de Québec. mais comment comptez-vous vous y prendre parce que déjà pour convaincre ñi nekk fii rek que waru leen dem parce que quoi qu'on puisse dire de bi metti na dëkk bi dëgër na ku nekk euh, waxuma la tirer le diable par la queue mais pour gis que bi rek tirer c'est un problème alors euh, comment comptez-vous vous y prendre est-ce qu'il a yaakaar ngeen ni euh, défi boobu mun nañ ko mun nañ ko relever. absolument euh, loolu dinaa ci mais je pense que ni sunu défi sax surtout mon défi convaincre sunu sunu jeunesse bi parce que ni nekk fële na le muy man muy sama naataango yu nekk fii am prise de conscience pour revenir et il y a beaucoup beaucoup de nos compatriotes yoo xamante ni ñi ngi ñëw je pense que ni boo amee étude dinañ gis ni y a beaucoup de de de, Sénégalais de l'extérieur qui veulent venir qui ont envie de venir donc xam lan lañ soxla accompagnement loolu lañ gën a soxla donc défi bi ñu gën a am mooy ñi nekk fii wan leen ni affaire bi fii la comme ni ñuy wax que combat bi fii la parce que bu dee richesse bu dee ressource lépp mi ngi fii nii li ñu war a def mooy réorganisation bi ñu war a def pour wan leen ni mbir bi fii la wan leen yoon bi bi nga xamante ne moom la ñu war a jël et je pense que ni gouvernement bi am na conscience boobu noonu parce que lépp lu ñuy déroulé inclusion jeunesse bi ci la bokk donc je pense que ni ñun ñi effectivement nous sommes des porteurs de voix Nous war a sensibiliser informer par rapport la richesse de am fii li tax des exemples Nous nga xamante ni ñibbisi réussir au ci ci ci Sénégal donc je pense que si nous avons surtout yéen ñi nekk ci presse nous voulons vulgariser des réussites yi nga xamante ni retour def nañ retour ñu investir par rapport à leur domaine que nan lañ def parcours bu ñu leen peut-être xel rek ascenseur comme on dit step by step la lépp mu sotti dafa le metti na boo xamante ni am ñoo xamante ni les vraies réalités du terrain duñu nous a bouger muy metti ñu muy nakari ñu principal c'est la patience. patience de faire naa ne dañ leen ko war de de telle sorte que duñu xalaatati di jël euh, gaal gi di di perdre seen vie gratuitement en fait parce que li ñu war a liggéey fii lañ ko a man j'ai confiance que gouvernement bu bees bi euh, projet yi mu par rapport à la jeunesse dina ko déployer te dinañ ci am euh, résultat. d'accord d'accord mais monsieur Diouf est-ce que vous pensez que ni tamit. Est-ce que ce sera facile Bon, bien sûr, ce ne sera pas facile parce que euh, le mal est profond et euh, il faudra vraiment beaucoup de patience, comme nous Marie Mouahe. Mais vous nous avons aussi au Sénégal, jël sa jeunesse, la plupart, plus de la moitié, ils ne sont pas formés. Euh, amuñu métier